Euh, jënd kër fële ci kër sëñ Touba ci New York yàlla dogal ñu dem fa di yeggale liggéey bi léegi dellu si nañ nag ñoo ngi yore euh, faculté bi nekk fële Ndar bu sëñ Mamour bu nekk Saint bi nga xam agro alimentaire la gone yi jàng li ñu mën a wax ci Cheikh Mouhamadou laa bari na lool waaye ginnaaw dañ leen di tënkal rek euh, mooy koo xam ne wax dëgg yàlla gàcce ngalaama la baayam doon ñaan ci tasaare l'islam ci àddina sépp la sëriñ Tuubaa wax lakin unaadi kullal bilaadi di seen ibaadi sëñ bi dafa ñaanoon ci mawaahi bu ne yow yàlla maa ngi lay ñaan tasaare l'islam bépp jëme leen ci yàlla mi nga xam ne nag mooy ci bind jaam sëriñ bi waxaat ba tey yaa waasi an wasaatali bi murtada ndonte foofu bayt bi jubluñ ci sëñ murtada mi waaye murtada moom mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sëñ Touba moo waxoon yow yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nag ma yaatalal sama liggéey bii kon dafay dugg ci yaatal bi nga xoolaat ba tey sëriñ Touba dafa waxoon wali suq dawaaman futuuxaatin akunu biha bushra liman bi hudal islaami xat daana sëñ Touba moo ñaanan loolu ne yow sunu borom na lislaam tasaaroo te ay conquête moo ko tasaare ubbi ay dëkk sëñ Touba ñaan sunu borom mu defal ko loola loola nga xam ne nag moom la Serigne Touba ñaanoon Cheikh Mouhamadou Mourtala moo ko concrétiser loola ci ban anam fu ñu dem niñ koy ubbee mooy samp fa kër Serigne Touba boo xoolee bi nekk New York te ma nekkoon fa ay ati at sëñ bi yóbbu woon ma fa ak euh, Bachir Lo mi nga xam moo yore Masalikul Jinaan ak ku ñuy wax Cheikh euh, Mourtada Kan ñun ñett ñoo fa nekkoon ñun la sëñ Mourtala yóbbu woon nga xool kër sëñ Touba gi nekk New York bañ koy wecc ko sëñ bi fii lay yónnee cinquante cinq mille dollars tolloog vingt trois millions ci jooju jamono pour participer ko ci liggéey ba nga xam ñàkkam la ci njëkk a nga xool loola ba mu xewee sëñ Mourtala taxawal fa bisu Serigne Touba bisu Serigne Touba bu bañ ko taxawalee sëñ Mourtala moo ñu wax nan nañ koy taxawal mooy di def marche ci yoon yi nga xam moo nekk New York yoon yu mag yi barab yu mag yi ñu gën a xam ci New York nga xam ne Harlem ñu bëree bëri xam nañ ko ñuy dox tàmbalee ca 116 ba fu ñuy wax euh, State Building. state building ba nag am na benn taalibe Serigne Touba bu mag bu ñu doon wax Mouhamad Balloo ji nit ku baax la sëñ Murtala ci la jëppalu ku baax la woon sañ bi nañ nañ ko jiital ci liggéey bi ndax nit ku baax la woon te wax dëgg yàlla euh, liggéey na fa liggéey bu rëy ca Amérique kon moo tax nag Cheikh Mouhamadou Murtala liggéeyam boobu nag mu won ñu nan nañuy defee marche di tudd yàlla di jàng alquran di yëkkati xasida Serigne Touba yi ci bis yooyu nga xam dañ ko jagleel Serigne Touba mu def ko le 28 juillet mu toll ak xurufu tuubaa yi nga xam ne boo calculer lettres yi ñu composé vingt 28 la kon loolu lu am am solo la moo tax Cheikh Mouhamadou Mourtala delloowaat loolu ci Serigne Touba jëgleelu ko boppam ndax da koo delloowaat Serigne Touba ma nga xam mooy waajuram wa ñaanoon yàlla mu yaatalal ko liggéey sëñ bi yemul ci loola fi ñuy wax euh, Nations Unies nga xam foofu la borom maanaam njiitu réew yëpp fa na ñuy daje lu toll ci téeméer rek bi dinañ fa daje at mu jot foog naa bu ma jugul septembre bii nañ fay daje. Cheikh Mouhamadou laa moo fa mos a woote ñu fay wax yàlla nee na yonent bi nee leneen lu dul loolu nag mbiru àddina kese dafa chef d'état di daje di fa di ko fa wax sëñ laa kon moo njëkk a tàbbal loola ca réew mooma tàbbal ko foofu ci Nations Unies ñu may ñu ko fa nag ndax toujours ci ñi koy àbbi man mii di wax ci laa bokk ñu paree toog ak ñi nga xam ñu yore sécurité bi ñu wax ñu nan nañuy utiliser microphone yi nga xam ñu nekk ci taabale bu ñuy wax ndax man maa daan doon foofu ay ati doon modérateur bi nga xam ne <coughs> bu ñu amee waxtaan man maa yëkkati micro yi ku war a wax ku nekk man maa lay jox micro bi kon nga xool la Sëriñ Tuubaa waxoon ne yow yàlla dig ma may inni uqaatibu nasaara turran fi ardihim li maliki muttara sëñ bi dafa waxoon la ma tubaab bi bañaloon ci samam réew danañ ma ko nangul ci seen i ëtt danañ ma ko nangul ci seen i pénc loolu nag kon sëñ Touba gàcce ngaalaama la mu waxoon ci xasida teg nañ ci sunu bët ba léegi ñu nangul sëriñ Touba journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba ca New York journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba ci Washington DC journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba fi ñu wax Detroit daanaka mën naa la wax vingt neuf états yoo xam ne daanaka macha allah boo ak Canada bi nga xam ne mooy quarantième état bi nga xam ne loolu xewoon na te day gën di yokk saa su nekk. Cheikh Mouhamadou Mourtala yàlla yàlla yokki leeram nag balaa may yem ci loola ndax gis nga ni mu fi sampe ay institut Al Azhar yoo xam ne sëriñ bi bi mu fi jógee lu toll ci trois cent euh, lu toll ci deux cent quatre vingt sept institut ci Sénégal gi bi am na ko fi. boo ci boolee it bitim réew sëriñ bi amaat na lu toll ci quarante neuf mille cent quatre ay dongo daara ci économie boo ci boolee góor ak jigéen waaye sëñ Mamoor Mourtada ñëw nag yokk ko mu doon université léegi am na université Bambey nga xam mbay nañu jàng mu ngi fii tout pare bu ngeen di dem foog naa bu ngeen jaaree ci yoon wi di ngeen ko gis am na université boo xam ne science religieuse nañuy jàngale fële ci Ndaam bu ngeen demee di ngeen ko gis euh, recteur bi mi ngi fii moom mooy imam bi fi sëñ Mourtada Baye am na boo xam ne agroalimentaire la ma nga fële Saint-Louis man mi maa fa nekk am na bu ngeen bàyyi Fass Mbaaw nga xam ne ñoom électromécanique na ñuy jàng ak info informatique de gestion moom nañuy jàngal fii ci Fass Mbaaw kon nag loola ngay dégg ni kon wax dëgg yàlla Serigne Touba ñaan nga mu ñaanoon ne suñu boroom yàlla na ko yaatal liggéey bi kon macha allah njabootam gi ñu ngi ci bu baax. Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mi nga xam ne buñ doon jàngale dañ naa ayatul min ayatillah sëriñ bi kéemaan la ci kéemaan yi yàlla yi ndax loolu moo ko bindal boppam baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xaaliqil baraayal aaya loolu ci mbindam la bokk mu a leer na nañ ba kenn ku ne xam ngeen ne man kéemaan la kéemaan laa ci kéemaan yi suñu borom bi sëriñ boobu nag yàlla bi mu koy wàccee ci adduna da ko fu mu ko jaarale jaarale ko ci ñaari waajur yu tedd yoo xam ne boroom dogal na ci ñoom ñuy askan wu baax boo xam ne kenn musli na xame leen lu lul jàng alquran ak jaamu yàlla ñaari waajurum yépp ñu kenn ay tànneef yoo xam ne adduna bépp ku ko xam yàlla dogali sëriñ bi feeñ foofu bu feeñee suñu borom euh, def ci moom loo xam ne jamono bi mu feeñee rek kéemaan la ci ñëpp mu màggaale ko ci ngawam di wane ay kéemaan màggaale ko di wane ay kéemaan ba nga xam ne fi la jàmm jëkk a jàmmaarloo ak i kilifaam wenn kippaaru Mamour Anta Sali la nekkan ci daara ji di jàngale ak a jàng waaye am na téere yoo xam ne moo ko bindoon sax nee ñu maam Mor daana jàng bi waajuram wàcce liggéey nag ba ñu denc ko ba noppi ca la ñu di xamee ne sëriñ bii am na ak wuute ak li doon xew mbaa sëriñ si nga xam ne ñoo fi nekkan ci jamono boobu ndax sëriñ si dañ daa jaxasoo buur di jëflanteeg ñoom ci atte bu ñu amee luñ bëgg a atte ñooñu atteel leen ko sëriñ bi nag ñu jël ko taf ko ci sëriñ soosa nga xam ne loolu moo doon seen métier bi mu waajuram wàccee bi ñu ko dencee ba noppi ay mbokkam ak xariti waajuram dañ ko wëlbatiku woo ko Cheikhul Xadim génne ci làng gi ñëw wuy si leen ñu ne ko dañoo bëgg bu ñu noppee ci lii ñu dem ci buur bi jaale ko ndax amoon nag sa waajur ab diggante bu rafet aman naag moom jëflante bu rafet ndax sa waajur moo ko daa àttee te loolu doonul euh, daraja joo xam ne daraja ju woyof la daraja ju mag la ndax ku dem ba buur tànn la teg fi wetam nga di ko àttee loola jamono booba ñi ko bëgg bari na te mënuñ koon a am ñu yaakaar ne loolu nag buñ ko waxee sëriñ bi dana ko neex dana ci am mbégte sëriñ bi xamal leen ne jaale ko day manees na ko waaye amma mu jox la mansab mu jox la fonction boo xam ne da koy liggéey loolu moom du suñuy mbir foofu la daal di bind mbindam mu siiw ma il mu saba na waytu maa yujaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmad ca la leen sëriñ bi daal di woon jubluwaayam nag lii sama yitte ci kaw suuf lii sama bëgg-bëgg ci kaw suuf mooy sunna si nga xam ne yonent bi da koo indi wan dama mu doon sunna soo xam ne dem na ba nit ñi da koo réere ndax bi sëriñ bi ñëw fekku fi sunna su dëgër dafa fekkaan ñu jaxas ko am na luñ ci jël waaye am na luñ ci dugal loo xam ne bokku te lañ ci dugalan te bokk ci moo ëpp sax li nga xam ne moo ci des sëriñ bi wan leen na nag moom sunna si yonantu bi indi woon soosu la am pas-pasab yeesal ko ba mu yees loolu jubluwaay bi mooy diinun siwa islaamihi laa yuhmad inda al ilaahi wa bihi nu jaddi loola li tax sëriñ bi ne leen lislaam moom mooy diine ji nga xam ne moom la sunu boroom nangu ku ci sukkandiku am nga cëslaay bu jub ku ci sukkandikuwul amoo cëslaay bu jub lislaam mooy diine ji nga xam ne mooy diine ji sunu boroom gërëm ñoom nag lañ doon sàkku ci moom it sëriñ bi da ko bindoon ay bëyit bëyit yu bari ya loo xam ne sëriñ bi ko bindal boppam mat na fukki bëyit ak ñaar waaye buñ ci indee ñaari baytu jëkk yi rek dana firndeel ne sëriñ bi moom lañu ko bëggan mu aw ca loola bokkut ak li nga xam ne sëriñ bi mooy jubluwaay ndax sëriñ bi daa bind xaalu li yarkat li abwaabi salaatiin taxus jawaïsa tugni kullama xiin mu ne sama bokk yi ak sama kilifa yi dañ mën a jàngal jëm ci bunt boor yi soo ci jëngee jëm danañ la jox yi may yoo xam ne dana la jëriñ adduna ba doo am solo sooy disken loolu sëriñ bi ne ne wala su aksha wala arju siwa maliki li annahu jalla yugnii ni wa yunjini sëriñ bi ne leen man kat awma ku may ragal lu may yàlla mi nga xam ne moo ma bind wàcce ma ci kaw suuf amul lu ma yaakaar ci doomu aadama lu jóge ci loxo nit di ñëw ci sama loxo ma koy yaakaar amul ndax noonu na yaddini yaddi li mughnin karimin naafiin samadin laa li darahima tati min sulaytin sëriñ bi waxal na leen ne sama loxo day yàlla mi nga xam ne moo nu bind wàcce ñi ci kaw suuf te ko am moo la jox moom dong laa koy tàll waaye du ay dërëm walla ay daraja yoo xam ne day jóge ci buuri àddina yi kon loolu rek mooy tegtale ne sëriñ bi moom wuute na ak ñi nga xam ne ñoom la dundal loolu nag moo ko jural jafe-jafe yi mu am ba ñu génn ko génn ba nag sëriñ bi it am na lu ci wax ndax lu nekk bu ko suñu borom di dogal muy am day am lu ko sabab moo tax sëriñ bi ne sababu xaybatiya anna allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawl ca loola muy wax moo sabab ñu am pexe yoo xam ne dañ koo nas ngir génn sëriñ bi waaye sëriñ bi ne génn bi kat la ca nar a amee daa doon lu rëy an anaala minhu jaaha tukki bi muy génn gi dama cee nar a am daraja joo xam ne yàlla mësu koo takkal ku mu wàcce ci kaw suuf dama cee nar a amee wa an akuna shafian li xawmi dama cee nar a amee may ràmm ñi nga xam ne ñoo ma yaakaar ëllëg yawmal qiyaama wa an li nga xam ne moom la gën a soxla muy liggéeyal yonent ci réew yoo xam ne kenn mësu ko liggéeyal loolu itam bokk na ci biir tukki bi nga xam ne moom laa tukki kon li taxan sëriñ bi tukki kon doon na lu rëy loola nag kenn ku ne gis na tukki bi jànkonteel jànkonte yi jànkonteel soo ko doon lim day gudd muy muy ci wàllu ndar jànkonte naa fa ay jafe-jafe yu rëy ñu ko indee ndakaaru yi xam ngeen ne ñetti guddi ndakaaru ya doon na ñetti guddi yoo xam ne sëriñ bi ne duma ko fàtte mukk ida dakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa sabur daarat ilal jihaadi bil armaahi nafsi walakin sabba anil maa bi ne ñetti guddi ndakaar yi su ma ko fàttalikoo rek sama xel day bëgg a futal jihaad loolu lu tax mooy nattu yañ ko fa teg ak tartar yañ ko fa teg dafa jéggi dayoo waaye ku ànd ak yàlla wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talquhu l uzr fi ajamiha talini sëriñ bi ne ne ku ànd ak yàlla boo dajee nag gaynde ci àll see nga xam ne sa mbir dara du ci sikk foofu nag mooy sukkandiku bi nga xam ne foofu la sëñ bi sukkandiku sëriñ Touba doyoon na rek ñu wax ci Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké mi nga xam ni kenn la ci ak njabootam makkan bii ñu toog di fi waxtaane buñ ko jëloon rek te na sëkk ñu def ci waxtaan ni moom mooy baat bi ñu koy woowee ca mu yeyoo ko mat ko sëkk muy ambassadeur l'islam muy kenn ci ak njabootam makkan bi ñu toog di fi wax muy néegub suñu boroom makkan la boo xam ni makkan bu doy waar la woon waaye mu doon jàmbaari l'islam joo xamee ni liggéey l'islam rek moo ko mos a ñor moom Cheikh Modou Mourtada Mbacké ba fu musaa teg bët lu woo wóoteeg lislaam dina ko jaral lu nekk ba jël loola def ko ci biir lislaam ndax mu mën a rafet loolu moo waral makkaan bii ñu nekk bokk ci makkaan yi nga xam ni sëriñ bi moo jël léppam taxaw rek ba def ko tey makkaan bii mu doon muy makkaan boo xamee ni bu àjjuma jotee imam mii ma làngal bokk ci ñi nga xamee ni walla bokk ci euh, doon ki nga xamee ni moo fiy jiite lu ci ëpp ci waxtu jumaa yi fu nekk la nit di jóge di fi julli si liggéey bu mel ni boobu nag moom rek la Seex Murtadaa Mbàkke jëloon def ko ci dundam ba mu jeex muy suuxat lislaam ak defar doomu aadama yi damay faral di wax ni Sëriñ mu Murtadaa Mbàkke kenn la ci jàmbaar yi nga xam ni tey bu arab yeggee fu mu yegg wala kenn ku ñuy wax ni yaa ngi doon jàng arab tey yegg nga ci dem bay nekk kenn ca ñay teewal askan wi ci pincum ndaw ña loole yàlla ak jëmmi Seex moom Murtada Mbàkke moo ko waral ndax taxaw gu mu taxaw lislaam te jàppit xam ni nit ki balaa mën a tekki walla balaa mën a jëriñ askan wi mbokk dafa am xam-xam moo taxoon mu taxaw rek pour askan wi xam seen diine waaye ñu xam li war ci seen réew waaye ñu xam li wàcc seen diggante ak seen dëkkandoo ak seen mbokk ci loolu rek la nekkoon kon màggal Tuuba lim ne nag benn baat rek laa indi wala benn xaraf laa indi ci lam waxoon ni barakun muy baat ba mujjoon ci arnabun li mu ne lu ma laal ko ca laal mu am barke téeméeri dërëm ak ñaar fukk su fekkee ni moo door màggal Tuuba ku la mën a wax tey ñaata milliards mooy dugg Tuuba ci jamonoy màggal gi ak après màggal ci lépp jëmmi sëñ Tuuba waral kon barke am na foofu waaye liñ ciy dolli rek dañ koy tënk liñ ci dolli rek te mu am solo ñu xam ne sëriñ bi léppam lislaam la léppam yeneen bi alayhi salaatu wasalaam mi ko indi la mu jaraloon ko lu nekk ku nekk xam li mu jànkonteel dégg ngeen ni ko imam waxee léegi ci waxtaan bu am solo bi mu def ak li mu jànkonteel ci nasaraan bi ci bitim réew ak bu mu si waaye taxul mu dellu ginnaaw benn yoon ca la taxoon ñu génne ko ca loola rek la mos a nekk mu am nag lu am solo loo xamee ni bu màggal ñëwee dafa jar a xel ci ñi nga xamee ni ay taalu bi lañ ci bëgg a dem Touba loolu dinañ ko ci dolli muy dem fa ngir jaamu ji suñ borom dem fa ngir ñaani suñ borom dem fa ngir santi borom bi subhanahu wa taala la in zakartum la asidannakum la alquran wax bu ngeen ma sante rek ma dolli leen loolu moo taxoon mu wooteel ko boppam defal ko boppam santaane ñu ko kii santale kon ku fay dem war ngaa am yéene bu rafet mooy ba nga fay dugg ba ba ngay génn nga tënku ci li nga xamee ni moom la lislaam bëgg ci sa wéet ak ci sa wéttalu mu am solo loo xame ni dinañ ko ci profité wax ko ci mel ni mag mu baax dañuy waxtaan na mu may netti sëriñ bi dafa musa génn nee ni mbooloo mi nekk ci bayaal bi bëgg gis jëmmam ji tedd ja rek ndax koo ko ci musaa gis ba ba ngay dellu soit ci mbégte ngay nekk loolu suñ borom moo koy def boo ko nekkalee rek day jël sa jëmm roof ko ci xolu doomu aadama yëpp fu ne nit jóge fa ñëw nag di ko xaar bi sëñ bi ne tëlli rek ñu ni sëriñ baa nga ne nee sëriñ bi daal di duggaat ci biir fatu ba ñu demee ba jant bi lang mu am ñu gisee ak moom ni ko ñun de sëriñ bi dañ laa gis doon la daw di la bëgg a ziyaare nga duggaat ci biir mu ne dugg bi ma dugg ci biir dama leen ci doon jox misaal rek misaal mi mooy bu yomal xiyaamee képp koo xamee ni dangaa ko ci lislaam ca bëgg a dundal li ma doon dundal ca loolu moo di lislaam di nga ma gis koo xamee ni da nga nekk ca la la neex nii nga ma ñàkk a gisee mu nga séen ma ca doo ma gis bu yemal xayaam it noonu nga da may séen rek ca doo ma gis kon loolu lu jar a bàyyi xel la sëñ ab daam Abdourahman Lo mi nga xamee ni ñu bari ci njabootu Serigne Touba it jaar nañ ci moom ci alquranu karim mu def ko ci ñoom sëriñ bi dafa mos toog ci njaareem biñ ko defee iqaamatu jabriya mu ni sëñ daam abdourahman loo mu ci ndaam dey ku teg tànkam fa mu teg tànkam sa yaram xaraamal na safara mais ñu teg benn ñu toog benn diir bu gàtt rek sëñ sëñ daam abdourahman loo jóge foofa ca daara ji ñëw di siyaare ci sëñ bi njaareem bi ñu yëgee ni moom la bi ñu xamee ni mooy ki sëñ bi doon tudd muy sëñ sëñ Dame Abdourahmane Lo ñu song ko coow li bare lool yëngatu bi bare lool sëriñ bi laajte ni ana loolu boobu yëngatu lu ko waral ñu ngi ko sëriñ Dame Abdourahmane Lo de mooy ziyaara si mbooloo mi dégg ko kenn ku nekk bëgg bu wàccee taamar ji mu war fu mu teg tànkam ñu teg ko fa sëriñ bi daal di jël kol gi teg ci gimiñ gi nii ndax waxuma loolu de aku tàngaay la ko waxee nag waxuma loolu dama wax ni ni muy dundee lislaam ku dundee noonu lislaam sa yoon xaraamal na safara mu mel ni kon mën nañu yem foofu rek wax ni ñu ngi sant yàlla bu baax ci jàmbaar ji mu am ñun nag dama koy doore ci imaam ci man mi ci oustaz Bakary Dabo mi ngeen njëkk a waxal ñu ngi sant yàlla bu baax waaye ñu ngi sant Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké bu baax ndax ci kippaaram nag ci lañu doore alifun baa un yàlla dimbali ñu ba tey jii ñu bokk ci ñi nga xamee ni ñu ngi ci sant yàlla bu baax ci fi ñu toll ci wàllu gëstu ci wàllu jaamu yàlla ñu ngi ci sant Serigne Touba waaye ñu sant doomam ji Cheikh Mahamadou Mourtada Mbacké di nuyu nag njabootam bi yëpp di ziare ñëpp ziar bi lañu waroon a doore sax doore ko ci ki nga xamee ni tey moo fi nekk Serigne Touba di sëñ Mourtada sëñ Mountakha Mbacké zadullah tawfiq moo wax rek asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu